aussi que sunu sœur Aminata Touré jóge na fi léegi parce que dafay jëli volam mais kontaan nañ ci ni mu ñëw pour soutenir Ousmane je pense que dara dootu ko nangu dootu ko naqare parce que su fekkee ni jigéen la ñu utiliser pour mën ko atteindre ay jigéen et pas des moindres quand ñëw taxawu ko euh, ñun ñëpp dañ ciy kontaan te moom itam mu war ci sant yàlla moo tax Malick yéen ñëpp hommage ju ngeen defal Aïda Mbodj dama koy déjee à toutes les femmes surtout les femmes yi nga xam ni ñu ngi jàppale le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag damay adressé wu ci waa Ziguinchor yëpp euh, jiital ci les président de conseil départemental président maa ngi leen di féliciter yéen sànq def ngeen seen conférence de presse ak ses collègues maires de Ziguinchor. ngeen indil ko soutien te soutien boobu defe naa moom la ko maire Sénégal yëpp indil notamment le réel parce que Ousmane Sonko est maire de Ziguinchor Ousmane Sonko et maire de Ziguinchor nekkul maire feneen kon Ousmane Sonko ci dëkkam la nekk bu ñuy wax premier magistrat mais maire moo tax di ngeen may déglu ci samay faral di samay interview ma ne poste yi ma occupé ci Sénégal yëpp maire moom ma ci dàqal. monsieur le président xeebu ma président conseil départemental de nekkoon naa ko maa ko njëkk a nekk ci jigéen ci Sénégal mais maire moo ma gënal parce que c'est affectif mooy premier contact administration ak les populations il se trouve que maire Ziguinchor la te tey jii ñu baaree Ziguinchor tey jii ñu gazee Ziguinchor Ousmane Sonko benn faute rek la def mooy d'être populaire seen maire nag dëkk bu mu demoon tam nii lay demee te amoon na bu doon ne dafay nëbbutu wala liñ ko bëgg a sosal mu am mais dañ naan dafa dem seeti benn sëriñ laaxatu fa comme niñ koy gisa Touba wala ñu ne dafa dem Tiwaawan laaxatu ji fa parce que cité religieuse yëpp am na fa wàccuwaay ba kër maamam ca paal ak raw mais bu demoon tey Touba kër lëmm lañ koy jox sama kër rek man Bambey am na fa appartement mais Ousmane Sonko fi mu nekk maire la dem et il se trouve que tey ci Sénégal malgré toutes ses fonctions fii rek ci Ziguinchor fii la am bureau il n'est plus député il a été radié de l'administration il n'a plus de bureau aux impôts et domaines à partir de ce moment fii la am bureau fii ci maire Ziguinchor bii muy dirigé grâce à vous les Ziguinchorois grâce aux population de Ziguinchor waaw léegi dañu naan nit ki doo dem sa biro këram nekk fa yaayam nekk fii ah man de tey laa mës a gis ñuy reproché nit fa mu juddoo ñu fal ko fa mu nekk fa waajuram nekk fa ñu ne ko waroo fa dem tey rek laa ko mës dégg te loolu nag dafay wane ne lay amatul lay amatul te loolu rek moo ñu bett ci procès bii ñuy wax procès bii ñuy wax dafa jeex te soo gisee man ñu indi woon procès bële dama defoon ne c'était pour parce que amatuñu woon na le ndax épuisé na benn argument nekk fa procès boobu bu ñu fa taxawee walla wallaahi te waxoon naa ko keroog ba ma nekkee avocat am à l'Assemblée nationale ñu ni duñ ma déglu ñoom ñoo xam li taxoon ñu ni ma duñ ma déglu dañu taxaw di yuuxu ni du ma wax parce que ki mas ki xamama ta déglu ñu ni du ma wax li ko waral moo di la ma leen wax la ñu bëggul woon a dégg parce que ne naa leen bis bu procès bi taxawee billaay yuux dina jibe fuñ ko foogewul ce sera le procès du gouvernement te loolu moo wér loolu moo tax ñuy indi lii yépp ndax ñoom Ousmane Sonko wax naa leen ko léegi en trois mois wuy jina sept fois sept fois yépp dinañ ko brutaliser ñun ñu dëkk ak moom ñun bu ñu nee des na deux jours pour ñu convoquer Ousmane Sonko waa koñ bi ba ci ñi bokk ci parti majorité man la ñuy laaj pour mën a dem def seen ay marché mën a dem def seen ay courses parce que dañuy bloqué ñun ñëpp kenn du génn loolu tey Ziguinchor dafa moome rek mais ñun lii la ñu dëkk ak Ousmane Sonko à la cité Kër Góor gi lu ko waral boobu violence. donc Ousmane Sonko tey mënu kenn mënu ko garantir et j'en profite vraiment pour ñi nga xam ne ñu ngi ñuy woo di ay kilifa muy kilifa ne muy kilifa aada maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen kontaan ci seen ñaan yàlla waaye ma bëgg leen a wax ne leen kan ci Sénégal moo ñëw ne. na Ousmane sonk wuy ji parce que dinañ ko assurer sécurité buy dem di wuy parce que dinañ ko assurer un projet transparent euh, transparent et équitable parce que dinañ ko assurer préjugé yi nga xam ne xam nañ ko yépp te mu nekk ci kawam dinañ ko lever kan moo ko assurer parce que nag quand même sa avons des leviers yoo xam ne heure bu Sénégal monsieur jaaxle moom la ñuy actionner mais il se trouve que levier yooyu joxuñu leen benn opportunité pour ñu mën a taxaw li ñu war a taxawee nga xam ne bu nu yedd aussi ñoom en revanche dinañ mën a joxe leneen en contrepartie donc biram wax na ko léegi Ousmane Sonko bu demoon cee sax mën na fa toog d'abord neen dégg naa ko benn meeting muy xëccoo moog biram seen wàll ku ci nekk sa wàll ci Thiès parce que li Cheikh Aliou Ndao waxoon le Sénégalais de demain bi nga xam ne au moins am na sept nationalités euh, bokk na ci sept ethnies mais sa Sénégalais de demain mën nañ ni Ousmane sonk la. mais demul fenn fi mu am bureau rek la ñëw fi mu juddoo la ñëw fi yaayam ju baax ji nekk yal na fi yàgg rek la ñëw à partir de ce yaakaar naa ni la ñu doon def ci Ziguinchor dañu war a xam ne léegi jeex na parce que lay amatul ni ñu ko doon waxee boo nee kii ñu daal di dem na Casamance def na nàngam loolu jeex na gasi kenn dootul jël Ziguinchor naan wala dafa dem ndax lii wala dafa bëgg a ressusciter lee defe naa repli stratégie la mais kenn mënul ne reflet euh, repli identitaire kon euh, nañu nañu xam raison garder euh, Ousmane Sonko e victime de sa popularité te yéen waa Ziguinchor xam ngeen loolu parce que yaakaar naa ne koo xam ne buy def nemmeeku tuur ñu ni ko du fi amee parce que nit ñi dañ koy topp buy dem tribunal ñu ni ko def du fi amee parce que nit ñi dañ koy topp buy dem gàmmu ñu daal di ñu disperser parce que nit ñi dañ koy topp buy màggale ñu disperser parce que nit ñi dañ koy topp keroog doomu Serigne Saliou la doon seeti mais dama mujj man téléphoné ko ni ko mënul ñëw parce que policier yee ko dogale et c'était à la mu di ko siyaare ji donc nit ñoo ñu koy topp mbiru sunu borom la il faut que ñu ko ñu koy bañ wéral donc bu fekkee ni yéen waa Ziguinchor kooku mooy seen maire ngeen xam ni seen maire boobu lii di dóor tey muy coup yooyu ñuy dégg lii moo ko indi te li ko indi du lu mu def du lu mu wax du lu ñu lu ñu créé la parce que soubassement bi ngeen di xool wax nañ ko waxati nañ ko yaakaar naa ne li mu wax moom ci boppam jël boppam dénk ko yàlla ñun ñu dénk ko yàlla moo fi nekk amul kenn koo xam ne mën nga décider ci destin wu nit te ñi nga xam ne ñu ngi taxaw di ko ci jàppale muy d'abord ses frères nga xam ne ñun jigéen ñi dañ leen daan jëw dañ daan wax naan góor ñi en politique yéenante wuñu dara ah non non du yéen yéen moom wax dëgg yàlla taxaw ngeen temm yéen ak seen frère yu yeewi askan wi yéen ak seen frère bu F24 te jàpp naa ne président ah defe naa dinañ wax ak yow nag parce que su fekkee ni rek troisième mandat bi moo indi lii yëpp ah F24 prononcé wu na de xaw ma gis nga ko xaw ma gisuloo ko waaye yeewi askan wi ni ñu taxaw woon delluwuñ ci gannaaw ku yaakaar ne tas nga ko te sagoo dara buñ la ko waxee dañ lay nax mais Ziguinchor itam ah yaakaar naa ne Dakar gënu leen a taxaw te li nekk Ziguinchor tey moo nekk fépp à travers le Sénégal maanaam di bañ injustice di protéger koo xam ne ciblé nañ ko di protéger koo xam ne euh, defu leen dara yaakaar naa ne loolu ñi li ñii li ñu wax doy na sëkk loolu moo waral sunu ay tànk ñeneen a ngi ñëw ñeneen a ngi ñëw parce que moom moo ko ji nit ñi kenn ku nekk li nga liggéey ci nit ñi rek moom lañ lay retourner parce que nit ñi aussi dafa am loo xam ne Ousmane euh, concevoir na ko te loolu biram ñu ngi ciy encouragé waa Pastef bu baax a baax nag ñu leen jot leen seen nuyoo ak parti yi nga xam ne ñoo composé Yewwi Askan Wi yëpp taxaw bi ñu taxaw vraiment ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant. Euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant wa